notre collègue Aminata Touré pour deux minutes. Seydou Dianko se ñu ngi nuyu ñëpp monsieur le premier ministre waxuma ko fii la ko waxee wax day leer man dama ne woon balaa noo mën a apprécier maanaam li nga ñu wax nga wax ñu lan mooy sa taxawaay ak sa xalaat ak sa position ci respecter constitution bi maanaam troisième mandat bi li nga ci wax nag xëy na da nga koo waxee voilà te bàyyi woo ci xel dégg naa ne da nga ne gëmoo élection euh, ne nga c'est une affaire personnelle déedéet du affaire personnelle du lu président de la république bëggal boppam lu constitution bi nga xam ne moo ñu tënk moo ne clairement nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs monsieur le premier ministre est-ce que est-ce que dafa am solo def naa sa membre gouvernement yi toog bëgg nañ une position claire bu jóge ci yow même sa groupe parlementaire bii bëgg nañ position bu claire est-ce que da ngay jàpp ne président de la république dafa war a defaat troisième mandat ou pa loolu mooy la question question boobu bëgg nañ nga tontu ko sénégalais yi bëgg nañ koo dégg sa groupe parlementaire bëgg nañ koo dégg man mii bëgg naa koo dégg parce que lii dafa war a leer bu fekkee ne da nga jàpp ne da nga war a jàppale un troisième mandat mais nga assumé ko monsieur le premier ministre nga wax ko ñëpp dégg ko man jàpp naa ne loolu warula am parce que man yow président du groupe ak ñi fi toog ñëpp dañu àndoon wax sénégalais yi ne. constitution deux mille seize dañu ko verrouillé ñun ñëpp wax nañu ko bu fekkee ne da nga changer position mais kooku sa droit la mais wax ko ñu dégg ko sa ministre yi dégg ko sa groupe parlementaire dégg ko sénégalais yi dégg ko mais wër-wërloo boobu wër-wërloo boobu moom nga war a clarifier boo ko clarifier ba noppi ñu seet ni ñuy def nag ak lii nga xam ne moom mooy ordre du bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Seydou Dianko. monsieur le monsieur le président honorable député chers collègues monsieur le premier ministre maa lay nuyu di la nuyu ak sa gouvernement di santaat yàlla bu baax di julli ci di bi di nuyu suñu waa kër Serigne waa kër El Hadj Amad dem ci Sokone monsieur le premier ministre li ma waxoon fii dama ciy dellu répété waat dama ne bi ñu juddoo ak tey yàggul Senghor fi la ñu fekk Abdou Diouf fi la ñu fekk. Abdoulaye Wade fi la ñu fekk président Macky Sall fi la ñu fekk dama ne ci monde rural bi du ci agriculture du ci pes du ci électrification du transport amul fenn foo xam tey président la mu fa def am na président bu def Sénégal amul monsieur le premier dama ne kenn du ñu jox leçon de morale benn sénégalais si ça t'enrage nga ne oui soo génnee nga ne non kenn du ñu jox leçon de morale nous sommes des députés nous sommes des élus du xam li xew ci Sénégal monsieur le premier ministre. dañu yónni doxalal ñii wan nañ Sénégal yi seen bopp xam nañ leen si tellement démocratie lii mooy yoon am nga lu la naqari bind nga ànd nga ci pënc ndaw réew mi pour ñu discuter ko dañu la woteel motion de censure bi du jàll parce que ëpp ñu majorité le ministre tey ñoom dañ doon wax ne budget bi du jàll liggéey nañ budget ba mu jeex un mois et quelques ñoom fu ñu ne woon fan la ñu nekkoon tey bu ñu bëggee jël Sénégal yi tey bëgg leen wax nit te monsieur le ministre li ñuy wax Sénégal sa rapport yi nga def yëpp dañu bëgg nag monsieur le ministre ko yuuxoo sàcc ndax dafa am ñu àndaloon ndax dañ ko yuuxoo sàcc ndax dafa ñu àndaloon ndax dañ ko yónni woon monsieur le ministre dama ne rendez-vous kale nga toog ba nga xam ne tey fi nekk nii wóor na la ne Covid am na nga toog ba vingt et une nga takk sa tibéy ba mu baax dem tekki ji ko naan dañ laa comploté dama ne loolu dañoo bëgg mu leer dama ne monsieur le premier ministre na ci justice andi lu leer parce que quatorze maires yi la ko def ni ànd ak saba dañu bugg ko yàkkamti ko monsieur le premier ministre Sénégal fi mu toll tey liggéey lañu leen laaj. ñoo ci d'accord ñun ñoo koy far ñoom ni ñu amee droit ne Macky du ko doon ñun noonu lañ bëggee Macky Sall doon ko je vous remercie. chers collègues la parole est à notre collègue Ismaïla Diallo pour trois minutes.